nuyu ñëpp man la madame Sarr Aminata Bintou Wahab Touré tey jii dama fi ñëw en président dama fi ñëw ndax li man jiite présidente association des sages du département de Tivaouane ma ñëw aussi fekk ñuy waxtaanee thème boo xam ne daf ñu yitteel ñun association des sages-femmes du département parce que suñu jéego yu bëri mën naa ne moytu nef la woon PF mais léegi dugal nañ ci dépistage cancer ndax xam jàngoro ji ni mu mel ci dëkk bi te ak ni mu ni muy nelawee ci doomu aadama yi surtout les femmes te duñ ko xam looloo taxoon léegi ñu orienté ñun suñu jéego yëpp ci dépistage cancer bi ak offre PF planification gratuite. bon comme niñ koy waxee journée internationale de la femme du Sénégal euh, de l'Afrique nam laa wax ñun association des sages-femmes du département. dañoo jël léegi date phare date boobu pour organiser ko journée de dépistage du cancer ñun noonu lañ gisee ni noonu la ñuy organiser suñu journée internationale de la femme parce que mënuñu wax femme ba pare xam li femme yi di dundu ba pare ñu ñu toog noonu di ko organiser ay mbumbaay wala di def ay fête ñun ñu gis ne journée dépistage boobu rek la ñu mën a def pour jàppale si jigéen ñi comme seen fête la ñoom ñoo ko moom récemment organiser nañ ko au niveau de l'hôpital de parce que chaque 8 mars EPS de Tivaouane daf koy organiser journée dépistage du cancer suñu journée bii passé macha allah jaar na si yoon on a dépisté comme 300 et quelques femme comme ni ma ko waxee mais ci trois 300 yooyu am nañ ci quelques cas yoo xam ne dañu suspect pas dañu kii mais dañu suspect parce que li gën a euh, am solo ci jàngoro ji mooy dafa laaj communication. ndax jigéen ñi xamuñu boo leen wax danga leen wax lu leer moo tax ñun dañuy insister ci communication avant dépistage ak communication après dépistage lii ñuy def prévention la ndax jaam doomu jàngoro ji mën na nekk ci jigéen def ay ati ati at di nelaw te du ko xam mais bu dépisté wul du xam ne am na ko dépistage boobu nag ñun la ñuy def bu ñu dépisté mu wóor nañu kii dafa suspect duñ la bàyyi nga dem dafay am yeneen jéego yu ci topp ay analyse analyse yooyu nag cher na cher boo xam ne comme monsieur le maire ni mu ko waxee léegi dégg na ndayoo léeg-léeg sax nga bindoo ko femme mais du am moyen mu dem tëddi ba léeg day ñëw phase terminale dootoo mën ci moom dara léegi nag ñun ñu ne dañuy def dépistage bu ñu dépisté ba suspect xam ne kii suspect la duñ ko bàyyi dañ koy topp teg ko ci yoon yi mu war a jaar yëpp ba nga xam ne doomu jàngoro jooju mu nekk ci bëtu njurukaay bi wala ci sein bi. dañ koy dindi balaa muy gën a déj dayoo li ñuy sàkku rek mooy ñu jàppale ñu ci moyen ak surtout vaccination bi nga xam ne buñ ko vacciné xale yi jigéen ñi à l'âge de 12 ans dina leen jàppale ci doomu jàngoro jooju di cancer du col de l'utérus parce que vaccin boobu ça existe léegi li ñuy ñaan rek mooy plaidoyer au niveau de de nos supérieur ñu jàppale ñu ci mu disponible ñu boole ko ci programme élargi de vaccination beneen bi aussi ñu jàppale ñu ci moyen de euh, dépiste euh, maanaam analyse yi nga xam ne femmes yi war nañ ko def mu nekk ay analyse yu disponible ba pare peu coûteux parce que seeraay boobu tax na yenn jigéen ñi nga xam ne seen doole demee wuñ na da nga leen ko bindal naam mais duñ ko def parce que dafa cher waaw. séminaire bi am fii di féliciter ñi ko organiser jiital ci soxna Binta Gueye ak association FEDA ak partenaires italien yi remercier association sage femme yi nekk fii le district médical le docteur Camara et toute son équipe pour seen taxawaay parce que ñun bi ñuy créer centre boobu fii euh, Sénégal ci piir dañ ko créer centre dépistage boobu liñ ci jubloon mooy lii mooy maladie boo xam ni dafa garaaw ba bu la dalee kenn mënutu ci dara te jigéen ñi lay lay dal Euh, nan la ñuy def ba jigéen ñi nga xam ne ñëpp xam na seen taxawaay ci ci kër yi seen taxawaay ci liggéey bi ci yar xale yi seen taxawaay ci njaboot yi euh, ak seen sax seen pasteef ci économie réew mi nan lañuy def ba aar leen ñoo seen i doom loolu moo taxoon ñu def ko waaye gis nañ ni biñ ko defee ba pare bu fekkee seet nañ la nga am doomu jàngoro bi euh, yi ma ci jot a gis fan yi parce que am na ñoo xam ni biñ ko amee ñëw nañu di sàkku ndimbal ñu yóbbu leen ànd ak ñoom ndakaaru vraiment njëg gi mu laaj pour ñu ñu toppatoo leen métti na méttiwaay boo xam ni beneen challenge la pour ñun ak euh, ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàll boobu autorités yi politique publique l'État ministère de la santé pour ñu seetaat yeneen mécanisme yoo xam ni war nañ leen dimbalee mën leen jàppale en particulier ñu def prévention prévention mooy am na vaccin bu xale jigéen yi am cher na ba léegi kooku bu ñu mënoon a fexe ba gouvernement bi dugal ko ci subvention yi comme vaccination yi ñuy def xale yi campagne de vaccination bi ñu leen di defal ñu boole ko ci pour xale yi jigéen ñi dina wàññi risque bi parce que feebar bu la dalee kenn mënatu ci dara comme ni ma ko waxee am na ñu ne sax da ngay meras sa bopp meras sa famille bala ngaa dem te dafa dafa metti surtout ci jigéen donc loolu baax na ci li ci des mooy ak couverture maladie universelle ak euh, mutuelle de santé yi ak mécanisme yi ñu am ñu xool nan lañu mun a def ba hôpitaux publics yi am plateau médical yi nga xam ne soxla nañ ko mais aussi ñu benn système de solidarité boo xam ni bu la bu fekkee gis nañ ko ñu mën la jàppale pour nga fa ju parce que ñoom dañuy dépister nit gis ko jox ko bindal kayit ni ko demal Dakar mbaa Thiès analyse kooku xool ko laajte li ñuy laaj mënu ko mu demaat kër toogam buy dellu si mooy bi jàngoro bi feeñee loolu mooy li nga xam ne mooy mooy li ci des donc dañuy ñaan président la république d' abord ministère la santé gouvernement bi yëpp mais collectivités locales yi ak tous les partenaires au développement yi yëngu ci euh, santé xale yi santé mag ñi euh, surtout santé jigéen ñi ñu dugal ci dimension boobu parce que tey jii gannaaw siburu mook siburu ñooy feebar yi gën a lor doomu aadama euh, ñu dolli suñu Pastef ak suñu taxawaay pour mën a jàppale jigéenu Sénégal yëpp pour le moment jàngoro mais ay lésions yu suspecte la yoo xam ne du ñu dellu ginnaaw quand même ñu war a topp la teel koo faj ndax une fois ñu xool lésions yooyu mën nañ leen yebal fi ñu leen war a mën a jël en charge rapidement balaa muy nekk cancer ndax xam nañ ne bu ñu gisee lésions yooyu euh, ñu am nañu 10 ans pour faj leen donc euh, lésions une fois ñu nekk am nañu 10 ans pour évoluer donc une fois ñu gis euh, femmes yooyu mun nañu bañ a àgg ci 10 yi stoppé leen teel leen a faj donc mun nañu wér sax suñ leen teelee faj. ñaata jigéen ngeen consulté ak euh, am nañu am xaw femmes muy juróom-benn. Euh, téeméeri euh, jigéen ñetti téeméeri. jigéen yu ñu jotoon a gis semaine passée rek. te si biir ñooñu juróom-ñett fukk jigéen gis nañ leen am nañ ay ay ñaar waa am nañ ay problème ci kol bi. donc duñ ne ñëpp am cancer mais après il faut que ay investigation la ñuy defaat pour xam te une fois cancer bi mu nekk loolu mun nañ ko faj daal dans une fois qu'on a dépisté mun nañ leen faj dans les meilleurs de quand même. yaa ngi maa ngi waaw maa ngi wut wàllu pour euh, ni ñuy jëlee en charge dialyse bi ñu mun ko jël en charge fajum euh, déjà dépistage bi mm-hmm. mais mun na jàppale jigéen ñooñu si ci fajum. Euh, paj mi parce que métti na ay chimiothérapie la ay euh, euh, nu mu tudd cure euh, lésion ay radiothérapie vraiment te dafa chair cher attanuñ ko mënuñu ko su leen ci état mënoon jàppale man moo loolu doon sama sama cri du cœur sama plaidoyer néew doon doole trop waa Sénégal donc loolu bu mënoon dugg aussi si programme bi ñu leen di jàppale comme ni ñu jàppale dialyse bi voilà doon na doon baax si jigéen ñi. ci atelier bi tey mooy. fexe ba nga xamante ni bu ñu fi jógee bépp sage-femme boo xam ne participé na wala infirmier chef de poste di nga xam nu ñuy dépister cancer di col de l'utérus ci par les méthodes visuelles donc looloo waral ndaje mi nga xamante ni euh, ki ko financé mooy la région Emilia Romagna ànd ci ak l'association Mani avec le centre universitaire pour la coopération internationale euh, ñi fi tase tey nag mooy ay sage-femme ya nga xamante ni wala ay infirmier chef de poste yoo xam ne ñu ngi jógee ci district Tivaouane district wu Xombol ak district wu Sokone donc tey mooy journée bi nga xamante ni ci la ñuy def la théorie demain la ñuy def la pratique au centre de dépistage et de traitement du cancer du col de l'utérus bi nga xam ne ñu ngi koy door a inauguré fii ci Pire te Bank of Africa tabax ko fi. dañu ci lëkkaloo bi nga ko am ak italien gi ni mu juddoo. fi ñu commencé woon foog naa surtout côté éducation lañu commencé woon puisque li ñu seet si woon li ñu seetu woon ñu seetlu woon Pire. mooy xale yi dañ daan teel a bàyyi jàng xale yu jigéen yi donc ñu doon xeex pour xale yooyu toog di élaborer ay projets ya nga xamante ni surtout dañ doon yëngatu pour xale yi di jàng mais di fa am ay résultats xale yu jigéen yi ci biir nag la ñu dem ba xam ni aussi xale yi itam jàppale leen baax na mais aussi jàppale seeni waajur surtout yu jigéen baax na ci la ñu am ay projet ya nga xamante ni day renforcer seen i capacité économique mais aussi ñu dem ba ci yàgg ñu ni quand même wér gu yaram jigéen bu wérul du mën a liggéey du mën a jàppale xale doomam aussi pour jàng ñu ne aussi nañ dem ci côté santé bi mais santé bi surtout ñu ngi ciy liggéey ak hôpital de Parme ak euh, le Gucci bi ñuy wax centre universitaire pour la coopération internationale donc muy matériel ya nga xamante ni matériel médical la ak yu bëri daal ñu ngi ciy jàppale ak surtout formation ci domaine ya nga xamante ni dina laal wérgu wérgu yaramu xale yi surtout ak wérgu yaramu jigéen ñi.